salaamaaleykum mbokk internet yi wasaare société ñoo ngi nuyu bu baax a baax di leen ziar comme ni koy defee à chaque fois problème bu mën a am fii Sénégal xam ngeen ne wàllu société koy dund à chaque fois ñu indil leen ko pour ngeen ngeen xam si lu nga xam ne nii xamul leen ko woon waaye tamit ngeen wax si tamit seen xalaat ci commentaire yi wala sax si bërëb yi nga xam ne yéen ngi toog di ko seetaan alors tey ñoo ngi fii si HLM HLM lañ nekk waaye ñoo ngi danoo fii si cité Imbertine li fi xew nag mooy euh, maanaam opération déguerpissement bi nga xam ne temps yi yëpp Sénégal ñoo ngi koy gis waaye tamit ñi dëkkoon fii si cité imbécile tamit ñoom tamit ñu ngi koy dund mbooloo mi gis nii rek ñoom ñëpp si euh, quartier boobu noonu lañ dëkkoon alors lañ ci taxaw ak ñenn ñi nga xam ne nii peut-être ñoom ay témoin lañ wala rek ñoom ñoo ngi dund maanaam lii la am lii yëpp ñu jox leen ay kàddu ñu yëkkati ñu wax ñu affaire nu mu demee asalaamaaleykum sëñ bi waaw xaaral ma salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi naka la. Mouhamed waaw opération bi déguerpissement bi ni leen def noo ko gisee. ah jaay doole rek réewam jaay doole rek la nekk ndax euh, ñun bi nuy dem tabaski ñun ñëpp ay bawal bawal la man mii di wax ak yéen silmaxa laa bi ma ñëwee dama fee dama yalwaan ba am fi sama place ku sama cosmétique. lu yaakaar loolu képp bi ma ñëwee ñu ñu bawal lan ma wooyee ne ma ñu ngi toj cité bi bi ma ñëwee fekk fekk ñëpp taxaw ci biti ma ñëw bëgg a dugg ngir génne sama bagage ñu ne ma fii amul lenn luy dugg te li ci gën a doy waar mooy bi nu tëddee ba ci guddi euh, dañoo gis sàcc euh, di di roñ ay saaku di di yéeg pont bi di wàcc ñun ñëpp ci autoroute bi bi la ñu tëdd man mii di wax ak yéen ci buntu hôpital bi lan ma mujj rawale ma tëdd fa. ba fi mu nekk nii aw ma yaakaaruma leen 1000 francs mooy sama capitalu tey te ndax maa ngeeg sama carte handicapé bi moo ko wanee uh, alkaati bi dene ma mënoo dugg ndax uh, colonel ba ñu fi teg te mu ci biir ma ne ko wol ma ko mu ne ma loolu uh, mënuma ko ba ma xaqanteeg fa ak moom ay ay cadeau mais lii mënuñu ne mënuñoo mënuñoo wax ne yëguñu ko ndax ki ne mooy chef de quartier mooy garde Babacar Mbeng mooy garde rapproché bi ko gën a jege aussi moo koy dawalal kon lii fu mu tegu te cité bi ñu baax rek a fi nekk soo ñëwee jàkka yaa ngi fi daara yaa ngi fi du fi jeex te fu nu wax ñu ne cité imbécile loolu teguwut fenn maire bi teguñu fenn ndax su ñu tegoon fenn dinañu jox délai walla wala suñu joxut suñu joxut délai jaarale ko ci borom kër yi lan moo doon ay ñaata million nit a nekk fii. milliards yi nit a nekk fii. voilà fii millions de personnes ñu ngi fii ay ñëpp euh, ku ci xëy ku ku ku weddi lii ma lay wax doon nga jaar euh, pont Asalem raay bi wala soit pont euh, Asalem gaaraasu su waay bi. léegi maintenant est-ce que avant ngeen Tabaski joxoon na leen benn délai fi jógee wala. mësuñu ñoo jox délai. danoo jékkee jékki. ñi fi nekk ñu ñëw fa fekk leen ci seeni néeg di leen fëgg ku jël sa saak ñu ne la tegal moomatoo ko li ci gën a doy waar mooy boroomi xar dém ci sama kanam dañoo ñëw di jël seen xar alkaati yi ci boppam ne leen ñoo leen ko gën a soxla. wallaahi man mu Mouhamed nduur silmaxa maa ko wax maa ko teewee. man maa ko teewe depuis quand ngeen dëkk fii ñaata at ngeen dëkk. fii dëkk nañu fi dix man dëkk naa fi dix ans te damaa fekk cité bi euh, noonu noonu mu leer ma ne am nañu ñu ma fi jiitoolu ëpp dix ans. bañ leen génnee ba léegi est-ce que am na kàddu yu ñu leen wax. waxuñu ñu yenn kàddu lu dul dem leen toog heure bu ñu paree génne seen euh, seen bagage ngeen ñëw jël ko te bagage yi ndëraan yaa ngi koy daraale ci biir euh, kii bi ndëraan bu jaar ci sa kaw bagage est-ce que deeti na la amal njëriñ. dootu la amal njëriñ borom bitik yi ñi ñu ci daaj daaji seen bitik ñëpp dañoo jël seen xaalis ak seen téléphone ñoom alkaati yi ñoo ko def ak ña ña duggoon ci biir. sëñ bi waaw sant yàlla bu baax a baax. tur bi naka la. Elimane Diouf. Elimane alors noo gisee situation bi nga xam ne fu mu toll nii yéen ngi nekk situation bi metti na lool metti na lool. dem ba léegi du kenn ku lekk si xale yi mag ak ndaw yëpp. ci biti la ñu fanaan metti na lool ñun ñëpp si biti lañ fanaan ay ndox la ñuy naan ñu ñuy dóor ay recommencer suñu xaas yu weex taal moo nekk fi ay place lañ fi yor man ñaari place laa fi yor génnewu ma dara. lan ngay jaay. cosmétique laa yor kankaa yére sama 2 mu ngi si biir exemple li ma mën a wax daal ak càq-càq yoo xam ne dama ko joxe ñuy daw ñu may weer si chaque jour 3000 dimanche bu dimanche lañ dut weer si. ak sama SS boo xam ne ni xaw ma dinaa si jot xaw ma du ma si jot ak sama matériel bi nga xam ne moo nekk si place yi xaw ma nu mu tooy tollu exemple li ma la mën a wax daal metti na carrément li ñu def nii dafa metti te joxuñu benn dele dañ ñoo tooñ dëgg dañ ñoo tooñ. mais mais kañ affaire xew. n'est-ce pas du dem xaw ma dem si guddi bërki dem bërki dem bërki dem ba léegi nii ñoo ngi nii lekkuñu. bërki dem leen fekk rek daal di leen. wallaahi nii ñu génne nii lañ génne. su suñu yére yi ñu génne nii moom la ñu génne. juliwuñu sanguwuñu nii la ñu nekkee lekkuñu naanuñu naan ndox kese la ba léegi nii. ñaata at nga fi dëkk. parce que ay dix ans yooyu ah waaw metti na lool léegi nag nun nan lañuy def wala ñoom dañoo bëgg nun ah instant bii nun ñu dem sàcc wala ñoom loolu la bëgg dañoo bëgg ñoom ñu dem sàcc léegi nun nañu dem wala nun dañoo bëgg ñoom ñu torox mais somme bi ñu am nii dañ koo ñafe ay booy yu ndaw lañ dañ koo ñafe. dañoo jaar fu metti faayit ko ñëw teg suñu million ñëw di liggéey. mais su jàppoon ne ñoom lañ jàpp ne dafa am ñoo xam ne ñëw si yéen yéen ñi daan seen am ñoo xam ne tamit dañ fi jaay def def leneen loo xam ne su du yoon. grand foo dem fu nekk am na defkati bu ñu bon boo demee si terrasse da gis ñoo xam ne ay defkati yu bon lañu nga ñëw fii si baraag yi am na fi am pagaay am na fi foo mën di dem am nañu defkati bon mais am na ay jullit yoo xam ne ay ñoo fi nekk soxlaaluñu kenn dërëm seen bàmmeel la ñuy sóoraale daal du ñëpp nag mais kon bu ñu ñi fi dëkk baaxuñu baaxuñu suñ ko waxee rek ñoom ñoo ngi am bakkaar képp ko wax yaa ngi wax bakkaar parce que ñu baax fi ay jullit ngi fi grand duñ teg suñuy million fi ñëw di daan suñu doole di liggéey guddeeg bëccëg ñu ñëw jëlee ko nii non metti na metti na lool est-ce que tey jii nii tur bi ñu bëree naan tur bi ñu tudd maanaam cité imbécile bi ñuy wax moo tax ñu bëri yaakaar ni ñu bon ñoo fi dëkk alors que ñoo xam ne ñoo fi nekk di jaay di daan seen doolam ñoo fi nekk. fii cité Daaru Salaam la tudd ñu baax ñoo fi dëkk grand li ma la mën a gàttal ñu baax ñoo fi dëkk ñu bon dëkkuñu fi grand man du ma yor samay million ma liggéey ko ca àll ba ñëw toog fii di liggéey ak moom ñu ñëw toj ko nii man du ma wëyu ñaari jabar laa yor ñaata njaboot laa yor samay xale leen di jox déedéet su ma la waxee da nga naa déedéet pour instant bi est ce tey joxe naa dépasse dem ba léegi joxe wu ma dépasse samay xale est ce que lekk nañu. yëpp si biir fii lañ dëkk. samay famille dëkkuñu fi man maa fi nekk sama ñaari jabar yëpp ñu ngi dëkk ba instant yi dama ne est ce que sama njaboot ñoom ñu ngi lekk te chaque jour dama yëbante dépasse ñu dem daara ja jàngi man lekkuma nii laa toll nii benn benn 2000 francs moom laa yor. man samay kayit yëpp mu ngi foofu si biir ak sama kayiti moto ak sama kayiti banque mu ngi foofu samay kayiti banque foofu. est-ce que ngeen si ñoom waxtaan ak ñoom pour seen ay bagages. mais grand yi ñoom fu ñu leen di gis amuñu fu ñu leen di gis may ñu temps boo xam ne ñoom mën nañoo wax ak ñoom suñu ñoom police yi bu ñuy wax ak ñoom dañ ñuy jànni dañ ñuy jànni jóg leen fii lañ ñuy wax dóor ñu ay recommencé du ñu xeex ak ñoom ñoom du ñu xeex ak ñoom ñoo ñëpp doole bu ñu xeex ñoom dañ ñuy gaañ dañ leen di bàyyi rek salaamaaleykum. waaleykum salaam. tur bi naka la. Mamadou Diallo. Mamadou Diallo waaw. yow ñu ngi ñu nga bokk. ñu nekk Guinée man Guinée Bissau laa dëkk. mais lu ma métti métti. gars yi daa ñëw fekk ñu 4 heures du matin ñu yeewu ñu nañu jug pour delloo dëkk bi. ma jug ma commencé ay dem jëli sama xaalis ak sama carte d'identité gars yi nanguñu ma jël. deux cinquante mille mu ngi sama valise damaa ñëwoon dugg si li ma est aéro national ma ñëwee ma dugg si gisuma sama xaalis bi sama valise bi yóbbu nañ ko si buus laa defoon sama yére yi buus boobu laa fekkee est jaxase nañ foofu yëpp loolu moo ma metti si àdduna bi. ba di génnee foo ah? bi. fekkee maa ngi jël sama matelas bi lal ko si si foofu laa tëddoon ngaa ni fekkee ñu foofu. jël leen yóbbu eh, ah, ñu yóbbu arène nationale dem foofu lekkuñu naanuñu mais xale yi am na ay xale yi lekkuñu naanuñu. ba leen yóbbu arène nationale lan ay bis leen dugal wala leen dugal. ay biis la dugal gaañ ay bis mais gaañ yi dañoo sonn ay maire yi bari xamante ne dëkkuwuñu fii xamul fii fenn ñoo ñàkk jëkkëraan doo xam gaañ fu ñu féete am na yu bari nekk foofu ñëwooguñu. ban ñu demee arène nationale parce que ñu demee foofu di dama toog ma ci biir tribune bi foofu laa toog di xaar gaani ñu ngi génne rekk ñu woote nee ne waa Guinée Bissau yi na ñëw euh, taxaw ñu rang ñu range pour ma génne ma fay paas ba ma esti fii ne du ñu dugg pour jëli suñu bagage bi instant ni ñu ngi yàq euh, cité bi foofu ah, waaw